bon ñun xam nga dañ faral di chaque suba si dañuy daw entraînement ay 6 heures lañ ko fi fekk fekk fi quelques gars mais nee nañ démb si guddi la fi génn quoi mais ñun buñ ko fi fekk deewagul nag. yéen ñu ngeen ko fi fekk yéen waaw mu ngi yëngatu. jël paaka dagg ay grand ñoo commencé sukkandu rek ñun ànd parce que yàpp la comme yeneen yàpp rek amul benn différence ak yàpp nag. mais luy dund deewagul ngeen fekk ko ci tefes gi pour pour man da ngeen ko waroon a sauver mu dugaat. non bii bii ñun mënuñu kaa sauver xool nu mu toll. xool nu mu toll mënuñu kaa sauver lii xewul yàlla la. lekk rek nga barki yàlla lekk rek lañ si gis. policiers ñoo ñu war a bàyyi ñu séddoo ko dama xamul lan lañ si xalaat nag. yéen bu ñu ko bàyyi woon ne nan ko war a séddoo mbooloo mi taxaw nii. barki yàlla lii bu ñu ko bàyyi woon heure bi doo leen ko fi fekk jeexoon na. ngay xaj gis gis nga nu mu fa demee heure bi jeexoon na. ñam nga <laughs> ñamaguma si mais am naa si tuuti. après naa ko toppatoo gaale. noo koy toggee yow. xaw ma nag xaw ma nu ñu koy toggee c'est la première fois ma koy gis. da ngay dem rek saa. xaw ma rek comme yàpp yeneen yàpp yi raxas dagg dugal kin togg boole si luñ siy def. nice.

这个也是。 Judi kali ini. Judi. Saya Judi. Hey, lama ko dati. au niveau national, mais également je le président de l'association des maîtres nageurs sauveteurs et surveillants de baignade au Sénégal maanaam kuréel gi nga xam ne ñoom ñoo ñoom li ñi nga xamte ne ñoom ñooy wattu géej gi te di aar seen kaaraange waaw man nag tey sax dañ ma signalé maanaam dafa am ku lab loolu la wax moo tax ñu ñu.

voilà soit day am jàngoro boo xam ne daf koy daaneel donc daanu boobu moom mooy waral donc su fekkee daf si ñàkk jaare ñàkk bakkanam léegi vagues yi mën nañu parce que baleen du dund si zone de baignade maanaam fii nit ñi di sangoog yooyu dafa am si ndox bu muy dund te ndox boobu température bi ak yii sax bokkul donc loolu mooy facteur yi nga xam ne mën na ko mën na ko indi wala muy dàq ay jën ba yam ci paas maanaam banc de sable banc de sable mën na ci yam su si yamee

waaw may sensibiliser nit ñi loolu moom moo moom moo war a sax gën a tax euh, euh, nit ñi war si bàyyi xel si li ma wax nii parce que euh, balen bi li li li échoué nii mën na am ay jàngoro boo xam ne mën na koo faat léegi yàlla dogal mu ñëw ba ci tefes bi loolu moo a nit ñi dañu war a bàyyi xel si seen wér yaram parce que balen bu échoué xamoo la moo ko rey nga koy dagg di ko lekk loolu je pense xel war ko mën a nangu nit ñi nañu def attention si seen bopp parce que la santé n'a pas de prix voilà parce que li issue issué fii ñun ñëpp kenn dañuy dañuy dañuy dañuy jox suñu xalaat rek mais ba léegi xamuñu la moo mais lolu mo wax nonu du meuna nek la jangoro mën na ko ba indi ko fi léegi nak bu ko jangoro rayee ba indi ko fi surtout ko instant bi ni corps bi mu ngi commencé nekk en état de putréfaction lutax parce que mom ñom dafa am fuñu dund fuñu dund ndox mi dafay sedd seddaay bobu mom motax ñom fa lañ mën dundé

yóbbu ko waa parc an su ko defee suñu gaynde yi mën nañu ko dundee parce que suñ ko defulee fii ba ngoon dina yàqu te bu boobaa ba am benn njëriñ suul ko rek la ñu mën a def voilà parce que dafay nekk en état de putréfaction parce que commencé na xeeñ déjà voilà léegi nag loo jox loo jox kuy dund war loo mën a fekk mu bañ a yàqu n'est-ce pas léegi nag la ñu war a ñëw ñu daggat ko bien que am na une quinzaine de mètres mais buñ ko daggatee dañ ko mën a yàq ci oto yóbbul ko gaynde yi nga xam ne ñoo nekk si parc je vous en Thank you.